tey euh, médecin chef district bi waroon def benn caravane boo xamante ne nii da ci jublu pour euh, xamal nit ñi li nga xamante ne nii ci lañ nekk nii moom la ñuy def li ñuy def lan la léegi médecin chef district bi docteur Ndeye Maguette Diop mi ngi fi ak membre équipe cadre district bi yëpp médecin yi ak infirmier yi ak personnel centre de santé Darou Khoudoss ñoom ñëpp ñu ngi fi léegi caravane biit dañuy wër dëkk bi pour euh, yéene gën a leeral nit ñi li nga xamante ne nii mooy campagne CPS. liñ ci jublu CPS moom daa nekk loo xamante ne nii euh, pour aar xale yi ci sibiru xale yi nga xamante ne nii ñu ngi nekk ci diggante euh, ñetti weer ba fukki at aar leen ci sibru loolu lañ jublu ci CPS. ñu leen di digal mooy ñu fexe ñu fexe xale yi des ci kër yi toog ci kër yi ci ñetti fan yi ndax dañ bëgg. xale bi euh, bi nga xamante ne ni dina aaru ci siburu bi il faut que mu jël ñetti fan yëpp garab yi kon nag xale bi war nañ ko fekk ci kër gi ñetti fan yëpp pour weer wi mu mën a aaru ci euh, siburu léegi li ñuy digal waajur itam mooy ñu fexe euh, balaa ñuy jox xale yi garab yi ñu fexe ñu lekk dara dara nekk ci seen biir xale yi koy jër bañ a xiif ndax bu ci bu fekkee xale bi ko jël day xiif mën na ko indi jeexintal waaw mais bu fekkee xale bi koy jël moom lekk na dara nekk na ci biiram rek yàlla mën naa def dara du ko sentir. boo boo gisee lu baax da nga koy tollanti ndax gis nañ ne euh, bañ ko defee euh, naam xale yi si sibiru bi wàññeeku na waaye ñi fi daan faatu day mel ni daaw sax amuñu ko kon loolu nag sant yàlla la moo tax nag ñu bëgg ko tollanti tollanti bi nag ñu euh, ngi tollu si ñi nga xam ne dañoo am ñetti weer jëm fukki at loolu moom lu dama bëgg loolu mu leer. te nekk itam contexte bu ngeen xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko contexte Covid la moo tax loolu yëpp dañ ci bàyyi xel donc ñi ñuy yebal ci kër yi euh, dañ leen di tàggat nañ leen ba pare jox nañ leen matuwaay dinañ leen jox masque dinañ fexe di raxas seen loxo dinañ yor alcool te boo leen seetloo bii paa daaw ñoom ñoo doon joxe doom yi waaye bii paa way jur yi joxe doom yi kon loolu damaa jàpp ne boole nañ ci euh, sóoraale nañ ci contexte Covid bi. suñu sunu cër mooy dem fekk njaboot gi ci seen i kër waxtaan ak ñoom. fexe ba ñu jël woon daaw jël ñi nga xam ne jëlee nañu daaw ñu fexe ba ñu jëlaat ren ñu wax leen ni ñu koy jëlee ndax lu ci bari nag sunu médecin yi wax ñu ko nu ñu jàngat ci tuuti ci ñoom xam-xam boo xam ne bu demee dinañ leen ko mën a wax waaw ndax bu siburu amee dañ koy ànd ak ñoom ñuy faju kon bu siburu ñàkkee am nun dañ koy xam kon xam na ne siburu bariwul daaw te xam na ne lii moo ko waral nu bëgg nag ren ñu jëmbataat ci fulla ak fayda bàjjenu gox yëpp génn ànd ak jaboot yi ñu sensibilité gone yi jox leen ko nit ci kaw niñ leen ko war a joxe te it euh, euh, kii yi ci aman daaw nu di ko sóoraale ren pour duñ ko am ndax dañoo fas yéene fu ñuy dem nun ko yi nu jegee daaw dañuy fas yéene ren nun bàjjen ya fa jegee togg suñu ay foone nga baale ko di jox ñi ndekki ñu di ko naan pour ñu am benn loo xam ne daf leen di sonal laal ndax nun dundu tudd ñàkk ndax askan mi ñàkk la ñu bañ a dégg ñun ay doom yuy faj si buru la ñuy wax ci baatu olof ni ñu ko jàngale ay doom yuy faj si buru lan leen di jox yan leen joxoon daaw moom leen leen joxaat ren muy ay doom yuy faj si buru mais affaire u ñàkk moom duma ma ko tudd ca nee naa bépp bàjjen bu mu ko tudd waaw ñun ci loolu lañ nekk